alors Mamy dinañ ci waxaat. <laughs> juste rappeler aux internautes euh, je suis avec euh, euh, Simon Kouka artiste rappeur Simon on va parler maintenant pour finir euh, de l'immigration clandestine 480 morts mu nekk chiffre yu ñu teg mais bu ñu gëstoo rek am na yeneen yu gën a tax euh, par rapport à ces chiffres qu'est-ce que ça te fait ces jeunes qui empruntent les pirogues de la mort. on est tous coupables mooy ma phrase qui revient rek la koy junj on Mm. Je ne cautionne pas, hein, mais je comprends beaucoup de jeunes qui, quand ils sont là, regardent nos à la télé, nos séries. C'est toujours kenn ku jógee kaaw mooy ñëw takk xale bu gën a rafet ci série bi koñ bu ñu nekk les immigrants dangay gis kenn ku jógee kaaw je prends l'exemple de la France pour France bi ma dund. Mhm. yenn booy jógee vacances boo amee trois bulletins de salaire boo demee ci ay banque yu ndaw ndawaan yi comme ay Finaref ay Cetelem mhm. ñu jox la dix mille euros du dara nga ñëw ak benn vingt mille euros li ngay def mooy louer appart xale yu gën a mool ci koñ bi yëpp nga jéem a fexe ba kii wala wóor ji ay xale yu mool <laughs> booy koñ bi di gis loolu duñ la wax ne kaaw mooy waaj. Mhm. mais yenn saa yi doo expliquer job yi nga fay def. y a une agression. doo expliquer job yi nga fay def ak tartar am na ñoo xam ne nag ils ont leur boulot tranquille mhm. ils ont voilà ils ne passent pas par euh, ces chemins. Mhm. je ne généralise pas. Mhm. mais je dis la plupart man ñi ma gis. et yoo xam ne dama ko dund. xay nit yu jógee kaaw ñëw di taal koñ bi. di blow ces gens là quand ils quand ils retournent ils passent toute leur vie à payer des crédits kaaw du dara crédit immobilier. crédit consommation oto truc du dara ngay wane sa salon la belle vie tu passes toute pour payer ça nga ñëw suñu yaay yi yàlla bu kenn nekk kaaw bul xam nan la def ba yónnee yaayam ay jesner wala ay njigu jesner ay njigu chaîne en or. là on en est à la pression sociale. nga naan ko xoolal kii moo am fulla mhm. xoolal yaayam yëre yu mu koy jëndal chaîne yu mu koy takkal ah, yow nga ne fii donc nous les artistes yenn saa yi suñu ay clip di wane ay belle vie ay xam nga waaye oto yu xale yi nana ni on est tous coupables on est tous coupables e comme je te dis je cautionne pas mm -hmm. mais je comprends ce jeune qui est là qui regarde la télé qui voit des gens yoo xam ne ñu ngi def yoo xam ne moom mënu ko def mënul egg foofu mënul egg ci niveau de bassesse yooyu les programmes télé, les contre-valeurs qu'on promotionne, etc., etc., etc. Ce jeune qui est là, il dit, je préfère la mort à ça. Si je ça mais beaucoup de monde nous Je ne cautionne pas, je ne cautionne pas, je ne cautionne pas, je l'ai dit trois fois. Parce que li ma tàmm wax ndaw ñi mooy bakkan dara gënu ko foor yàlla ci li mu sàkk kaw suuf yépp bakkan nit doomu aadama moo ko gënal moo ko gënal téere yu sell yi mhm. moo ko gënal jàkk yi moo ko gënal immeuble yi gratte-ciel yi asamaan suuf biddéew jant ne nit moo ko gënal loolu yëpp donc kooku dafa war a fonk bakkan waru ko di ko tayle parce que loolu lay yàlla gën a fonk fonk mhm. mais tey ce jeune là t'as beau lui mais lu muy dund au jour le jour le quotidien tu vois nos politiciens pas politiciens politiciens ñu baal ma ci terme bi dañ lay fal tey un mois deux mois après nga ñëw yéegee étage sa koñ peinture auto yi di dóor daax yow booy kon bi nga nekk fi di gis agression boobu sa benn xel bu sa xel nee da ngay ne même attends lii man il faut ma dund ko te mënuma nekk politicien mënuma nekk kii mënuma def yenn yi xaa ma jël yoonu géej gi parce maa ngi gis kenn koo xam ne saa yu jógee kaaw su ñëwee xam nga mooy yore xale yi mooy kii et cetera mais encore une fois li may wax gars yi parce que je suis pas à leur place on n'est pas à leur place c'est très mm-hmm. difficile de parler à leur place mm-hmm. tout ce conseiller bakkan dara gënu ko fort et tamit ñuy doylu bu ñu di calquer suñu life ñun par rapport ak kii am na oto kii am na xale bu rafet kii am na compte en banque ñun it il faut ñu am ko donc xaa ñu dem tayle suñu bakkan surtout jamono ji nga xam ne état espagnol yi ak yenn état européen dañu signé ay convention yoo xam ne mm-hmm. boo newee cëpp foofu dañ lay delloo donc da ngay fay sa xaalis pour ñu indiwaat la à la case de départ nga ñàkk sa xaalis te xaw nga ñàkk sa bakkan mm. mais beneen affaire bi mooy ceux qui s'enrichissent sur le dos de ces jeunes mm-hmm. parce que tey tu embarques deux cent jeunes mm-hmm. qui ont payé quatre cent mille c'est quatre-vingts millions c'est ça quatre xam nga gaal bi ñaata la lay dikkee cinq millions quatre cinq millions ba six millions la la gaal bi di cinq laaxkat ngay am laaxkat mooy ñi di tey gouvernant ñi di dawal. cinq yooyu ku nekk un million nga leen di fay ñooy awante ku nekk un million muy beneen cinq million muy dix million cinq toggkat ñooy nekk ci gaal bi toggkat bu nekk cinq cent mille nga def je te donne des parce que pour avoir côtoyé fréquenté nekk ak ay nit yoo xam ne. ils l'ont vécu en live c'est pour ça que donne des chiffres exacts je te dis gaal bi 5 millions ñii di dawal laaxkat ñii di yore téye gouvernail bi ku nekk un million 1 million ils sont cinq ça fait 10 millions toggkat yi ils sont cinq ku ci nekk cinq cent mille nga koy fay ça fait 12 millions 500. ravitaillement c'est tout un business autour. ravitaillement bi ngay def ak ay essence ak yeneen moteur de rechange yeneen pièces de rechange yi ngay yi ngay yi ngay jënd ça ne dépense pas les am na ñuy wax sax deux millions cinq cent mm-hmm. muy quinze millions yana neexal yi ci yoon wi parce que par am na neexal mm-hmm. bu la gars yi jàppee donc sur les quatre-vingts millions tu dépenses vingt millions sur les quatre-vingts donc tu as soixante millions soixante millions te yow mi di ko am doo dem fii ngay toog fay na ñuy dem ñooñu mën nañu ñàkk seen bakkan les gens sont au courant de ce business là pourquoi ils ne les arrêtent pas et ces gens sont là en train de se faire 60 millions every day nit yaa ngi dem ah, ba tey. donc tous ces gens là c'est pour ça que je dis on est tous coupables pression sociale Facebook Snapchat le culte de moi. Mhm. ah gis nga booy oto bi nekk sama ginnaaw et cetera et cetera tout ça là c'est parce qu'on est tous coupables et benn moment il faut que tamit ñu wax ak ndaw ñi benn moment. ñu ngi wax sax mais comme ni mu ko waxee rek yow nit ki li muy dund. Mm-hmm. ak ni mu koy yëgee à à son intérieur conseil rek nga ko mën a jox. c'est pour ça j'ai répété tout à l'heure je ne cautionne pas je ne cautionne pas je ne cautionne pas mais je comprends beaucoup beaucoup de jeunes je les comprends. et les licences de pêche on en parle aussi Simon. parce que boo gisee ñu embarqué wu di dem aussi ci wàllum politique bi rek. mooy mm-hmm. tey da ngay jaay géej bi mool bi nga xam ne da doon am. vingt mille par jour vingt cinq mille trente mille par jour tey il n'arrive pas à faire deu cent mille il se transforme en passeur mm -hmm. et passe passeur du ñëpp ñoo ko mën du ñëpp ñoo ko mën parce que le problème xam nga ça se trouve où mm-hmm. gis nga après Las Palmas mm-hmm. et Espagne mooy vague yooyu di mel ni immeuble du ñëpp ko miin mm-hmm. du ñëpp xam yoon wi beneen problème bi mooy tey da gis ñoo xam ne GPS yi il ne les maîtrise pas xam nga parce que géej gi joxatu la rek yow da ngay nekk chauffeur nga décider dal mais boo jëlee euh, nu mu tuddati encore GPS nga jëlee ko pisu Sénégal nga dugg ci eaux maritimes euh, Mauritanie day réer. boo amulee puce Mauritanie boo demee ba Maroc. Mm. day réer.

tu vois ñi di togg tamit ku nekk mën nga yóbbaale benn wala deux personnes donc c'est tout un business qui est là les gens sont au courant de ce business toog def tech l'État est au courant de ce business toog def tech ce que je dis là je peux pas l'inventer quoi je t'ai donné des chiffres je t'ai donné des parce que boy yi quand ils t'expliquent tu leur demandes mais nan kii qu'est-ce qui lui a traversé l'esprit ba mu jaral ko mu ñeme ñàkk bakkanam mm-hmm. fa ngay xamee ne le il est immense dans ce pays c'est un trou paillant bi nga xam ne amul am na début mais amul fin et désespoir kese moo la mën a ne waaye man naa dee sax moo ma gën dund bu dee bi rapajoo doon wax mhm. man naa dee sax moo ma gën gënal may continuer dund lii sama kër wala sama gox et la solution est-ce que ko koo trouver si ay euh, projet yu mel ni comme seen yës euh, la consommation locale on parle de ton projet Simon waaw xam nga tey quand je dis on est tous bien le retour quand je te dis on est tous coupables mhm. gis nga le culte de du moi la du xoolal marque laa sol ah waaye sa lii falsa la vrai tey si chaque Sénégalais ceux qui nous regardent décider de s'habiller quatre fois par par semaine mhm. ou cinq fois par semaine cinq bari quatre fois par semaine avec nos artisans locaux consommer local tu augmentes tey la leur production. en plus c'est joli et c'est original aussi. non seulement tu augmentes leur production mais ils vont embaucher plus de jeunes donc des jeunes qui ne vont plus être candidats à l'immigration. Mm -hmm. si chaque Sénégalais waxuma la état de mu créer ay industrie bien que c'est de leur ressort aussi ressort. tu mm -hmm. mais état tamit dafa war a juste teg les conditions mais dama si chaque Sénégalais tey décider wala la moitié des Sénégalais ne man ci suñuy artisans yi laa koy jëndee ay bàyyi yenn marchandises yuy jóge ci yenn dëkk yi mm-hmm. ah nga gis secteur artisanal bi day gën a suqaliku day gën a jóg. parce que maintenant tendance bi mooy bagage yu jógee Turquie on enrichit les entreprises turques au détriment de de nos entreprises. bëgguma woon tudd tout mais comme tu le dis la Chine. Ouais. Dubaï Turquie. c'est ça comme tu le dis. mais il faut qu'on en parle aussi. mais mais loolu laa lay expliquer mm-hmm. si chaque Sénégalais prenait ses responsabilités. li nga sol nii dafa rafet jugewul Turquie. même les tresses boo ko defee ñu ne da ngaa modde. <laughs> on préfère jël ay cheveux <laughs> naturels yoo xam ne ci ay. su ma wax yenn termes yi waaw ci foofu foofu nit la jóge gars yi rafet bref <laughs> mais comme jeu dis si chaque Sénégalais décidait de s'habiller plus chez nos artisans. Mm. dañuy def dàll dañuy def yére dañuy def ay tubéy tey même soo bëggee waxuma la sax le tissu africain. mais tey dama ne même boo bëggee chemise costume cravate lin nos artisans peuvent te le faire. et c'est ton business qui peut rapporter Simon. mais énormément énormément non seulement sa peut rapporter mais sa va obliger ces artisans la à embaucher des jeunes. Mm -hmm. donc ça va relever un secteur. donc man c'est mon projet je l'appelle savoir-faire local. et je mets la la main à la pâte loo tax temps yi may gis may sol ci kaw ba ci suuf yëpp fii la jógee artisans yi koy def. et c'est très gis. Cheikh Dalla moo ko ah bon yi tamit euh, moo koy defar Cheikh Cheikh Dalla xaaral ma yëkkati. def un peu de ba ñu baal ma naka Cheikh Dalla moo def dàll yi tubéy bi nii afchal la il de la récupération de jean. ok tu vois yére bii c' est Nounou Nounou design elle est en ville. Euh, je salue moom moom temps mooy sama directrice <laughs> artistique moom may voilà teg ci yoon. et le collier. Nounou le collier aussi c' est ici euh, voilà donc li may wax rek mooy. Mm-hmm. il faut joindre xam nga sànq yaa ngi wax ay waxu yee euh, impéri gars yi dañuy xeex impérialisme mais gars yi dañuy xeex impérialisme di la solal t-shirt Nike ma sœur dañuy xeex impérialisme di la solal ay t-shirt ay dàllu Adidas te Cheikh Dall na fi. wala te te Bamba Lamotte na fi. wala takk na papillon xam nga waaw. <laughs> na papillon bi sax mën nga ko mën nga ko ñëwlu fii xam nga man je suis pas dans les extrêmes parce que am na ñu nekk dans les extrêmes di wax ne. même la tissu doo doit jóge Sénégal. Ah, voilà man je suis pas dans ces extrêmes yeggaguma pour man niveau boobu. il faut pas aussi se. man première phase. déconnecter du mooy lan. Mhm. mooy même boo jëlee tissu jean. Mhm. yóbbu ko ci artisan bi mu defal yaa ngi koy dooleel. Mhm. te du yem ci tissu jean boobu nga ko jox day dem ci chaîne bi mercerie jënd jënd lii jënd et cetera donc tu es en train d' du moom rek ngay alimenter c' est une chaîne. man foofu laa toll peu importe le tissu peu importe fu mu jóge ay wax c'est hollandais ay wudin c'est hollandais d'accord mais c'est africain mais nag waaye yow saa waaye tubaab bi di nga ko sol voir lu paysan we <laughs> mais le le truc c'est pas ça le truc c'est juste na artisan yi liggéey voilà loolu kese la mhm. man je ne parle de na artisan yi liggéey jëlal tissu yi tey encore une fois boo bëggee costume mhm. ñoom moo fashion a ngi fi ñoom mu ndaanaan nañu fi j'ai rencontré récemment kenn liberté damay fàtte turam sax bu la defalee costume da ngay foog ne lii prêt à bu jógee kaaw la mm-hmm. xam nga axay lin c'est propre c'est nickel buñ la defaree daal la day dëgër këcc c'est propre c'est nickel ay chaussures fermées yoo xam ne da ngay foog ne waaye yow lii ay Louboutin la wala ay xawma lanax lanax la donc ñun nañu nañu suqali rôle artisanat bi parce que moi mon projet c'est en trois phases mm-hmm. la première phase c'est tout ce qui est habillement textile chaussures et cetera. mooy fexe ba ñaax sénégalais yi ñuy solo plus chez nos artisans tailleurs. Mhm. que di importer. on prépare la semaine du consommé local sénégalais on va le faire l'année prochaine. incha pour inciter sénégalais yi au moins semaine bii de képp kuy génn solal loo xam ne sa benn artisan koñ wala dëkk wala réew moo ko def. Mhm. xam nga pour au moins suqali secteur boobu. bu ñu paree ci phase wu yére y la phase euh, menuisier parce que tey da ngay dugg ci ay ministères. Mhm. wala ay bureaux tu vois des meubles made in China. Mhm. made in Turkish made in Dubaï alors que nos menuisiers sont la font de l'excellent boulot. en terme de déco et quoi que ce soit et je crois que sax dinaa ñëw seeti Pape Ngagne pour mu changer yii parce que yii nii su ma juumulee Chine la jógee donc suñu menuisier yaa ngi fii mën nañ ko defal lu dàq lii ak lu gën a dëgg ba ndax lii xoolal maa koy yëngal nii muy waaj a muy waaj a daanu. non tu vous êtes en train de de faire du sabotage là. comprendre donc encore une fois. Euh. c'est en deux phases. Après, on doit euh, euh, attaquer tout ce qui est mobilier national. Okay. Il même un programme sur ça, mais nous, nous, nous renforcer. Mm -hmm. Demander aux patrons de société, aux directeurs de société, les meubles, nous faire le tissu menuisier. La troisième phase, c'est l'alimentation. Voilà. On ne peut pas Surtout. avoir le tiep du Wallo ici, ouais. avoir Dougoupi, avoir le Fono, mm. côté Kédougou et tout ça. De continuer, de lekk tiep, de ramener Malay, de Voilà. Soukar, de Berena, diabète, de nous rey, mm. AVC, de nous rey. diwlin gu bëri bi et cetera et alors que pain matin pain farine boo xam ne. mu ngi lay rey alors que pain wu nebedaay baa ngi fii. Mm-hmm. pain wu à base de mil à base de mboq et cetera il y a énormément de choses qu'on peut faire donc troisième fas ça sera la phase alimentaire mais bon je vais pas m'éterniser là-dessus ñu ngi ci et temps yi mën nañ ne sax sama engagement à quatre-vingt-dix pour cent fa la féetewoo parce que je commence a voir des résultats. tu prends quelqu'un comme Cheikh Dall j'ai commencé à acheter des chaussures di publier ci moom je vois que beaucoup de gens l'appellent ne dama gis sa affaire ci kii Simon di ko commander ba ay Suisse ay États-Unis ay fu nekk. ok donc sant yàlla on voit des résultats ba ci maam Cheikh bi may defal ay pantalon fu nekk la ko nit yi di woo ci adduna bi di ko commander. Mhm. donc il faut juste comprendre que ne on est tous coupables il faut que chaque Sénégalais se dise je vais au moins faire l'effort trois de m'habiller chez mon tailleur du coin pour jox ko de la de de de de quoi vivre moom tamit fu muy jëndee marchandise c'est toute une chaîne et cetera et ba bu ñuy am suñu ay tannerie mi nga xam ne ñooy defaral suñu cuir bopp suñu ay usine am na benn usine sax bu nekk fii Thiès bi ma découvrir mhm. temps yi nii euh, monsieur Fall war naa ko seet goro la sax ci man boo xam ne ñoom ils transforment du coton ici et ils te font des t-shirts ici avec le coton bi jógee fii tu vois donc tout ça c'est des secteurs yi nga xam ne bu ci sénégalais bu nekk décidé jàpp au lieu que muy jënd luy jugee feneen je crois que comme comme réew mi dina gën a jóg